ba tey maa ngi taxaw ak ki nga xamante ni mooy Mori Cargo Mori Cargo bokk na ci xale yi nga xamante ni daaw saison am ba mu waroon bëre bëriwu ko ci diggante ma Cheikh Super Jamono waaye tey bi ñu wootee ci mbëri ñëw nga wane nga ni euh, yéen ñëpp mbaam gàtt na lool waaye ci jur gi la bokk ñuy fayee ko 30 millions ñuy fayee ko 40 millions ñuy fayee ko 5 millions ak 100 000 francs ñoom ñëpp benn licence la ñu am muy licence su 10 francs tey woote bi loo ciy jël. waaw woote bi a waroon def la mais xañ na tey la ko yàlla dogal ñu defee ko noonu moo tax ñoo ngi si sant bu baax a baax a baax di kontaan nag xam nga si ñi nga xam ne moom ñoo ñu jiite ku si mel ne suñu président Giri Bordeaux ñooy kontaan si moom lu ko remercier tamit di rafetlu bu baax a baax acte nga xam ne moom la def parce que am na solo macha allah ndax tey dajale na axlu làmb yëpp tey gënoon a jafe def na ko maanaam dajale na mbër yu ndaw mbër bu mag promoteur ménager ñëpp ñëw nañ daje li may wane na tey làmb kon benn bopp la gis nga tey boo demee si lébu yi seen dëkk yi maanaam dañuy jubawuñ seen biir mën nañ di xuloo di def lépp mais soo fa ñëwee tey bëgg fa jàppante kenn doo doo ko defati. boo laalee ma mbokk rek la ñuy laalee kenn ñoom ñëpp lay sot. lamb nag tey noonu la ñu war a doxee lamb boo laalee benn mbër da nga war a laal mbër yëpp. parce que tey mbër yëpp benn licence bi lañ am yaa ko wax sànq kon tey képp koo xam ne kuy tax ngemb la war a ku nekk si lamb tey problème bi ñëpp ko yëgandoo muy mbër bu ndaw muy mbër bu mag ñëpp ñoo yëgandoo que tamit toog bëre woo neexul tey arène bi bu tëjiwuloon lamb simple tëji nit ñi nañ mën a dem si lamb simple compétiteur ji bëre yaa ngi dégg métti na trop ba fu métti yam ñuy wax na xam nga état nañu gëstu làmb Sénégal yaa ngi dégg nañu gëstu làmb Sénégal nañ gën a delloowaat mbëri cër du ñu jooy dañuy waxee xam nga xol waxee tamit ak xam ne ñun ay nit lañ mbër du dof ñun ay nit lañ te si dëkk bi lañ dëkk war nañ mën a taxaw posé wax li ñu bëgg correctement te du ñu yuuxu kenn du ñu saaga kenn du ñu sànni kenn loolu moo si am solo nañu jàbbalewaat làmb ñu gëstu waat làmb ñu xam ne tamit ay jeunes ñoo si nekk ay xale yu ndaw ñoo si nekk solo champion tour bi Albouri Albouri ban écrit écrit sa ñaambur waaw Albouri moo mën a noo dégg de sa sa tàng ra sa kin jar na lu de <laughs> waaw waaw jikko la mais tey nag euh, li ñu fi gën a indi mooy euh, li ñu metti ndax wax dëgg yàlla életaan yi mun naa ne làmb ñoo fi daje te xama rek mbër yi boobu ba ñu ngi toog di déglu xama di xaar mais état bi dafa mel ni ñoom reconnaître ñu xama gis na nañu situation ñëpp xama di lijjanti ñëpp mais dañoo bàyyi mbër rek ñu toog seen coin te mun naa ne artistes yi ñuy situation ah ak musiciens yeeg euh, artisans yi ñun ñoo leen gën a sonn mun naa ne ñoo leen gën a sonn ndax mun naa ne artiste bu xiif wala musicien bu xiif mbër bu xiif moo ko gën a danger fuuf te ñun bu ñu xiifee loolu lu ne la. man mënu maa tëdd talleeku ma cere 700 wala 800. xam nga mais tamit bëri naa ci ay morom mais xam nga loolu tamit nga nga yor ko fii ku fi mat 100 kilos normalement état bi ñoo la waroon jël état bi ñoo la waroon jël en charge mais Sénégal la ngay gi ku mat 100 kilos xëyul gontul di nelaw ko yeew ba pare di entraîné di dem ci dun yi ah di dem ci géej gi di dem ci saali xam nga te mat 100 kilos tax xëyoo gontoo. am loo lekk merci man lu ma gën a naqari ci làmb mooy communicateur yeeg ñu yor nekk si rajo yeeg yooyu noonu balaa maa dee ñu ne làmb am na état defal na ko arène nationale ak yooyu ñun ñu ko am. arène nationale dafa am ba pare làmb dee barke alxuraanu karim dafa rey làmb te ñu ko te ñu ko may kado ba pare affaire yi gën a métti balaa maa dee ñu ay état defal na leen lu ñu lu ñu defal defaluñu tous. état dañ ko woo état dañ ko a am dañ ko a am waaw ba pare ñun ñu am état état ba pare mënuñoo tëgg làmb ba promoteur bi dama fay fee cent mille nga fayloo ko fële un million loolu du dëgg ñun seddu ñu nu cër benn yoon jox ñu benn kii xoolal xoolal li fi daje tey am na loo xamante ni sax dafa ñaaw xaalis bi génn si réew mi ñun suñu dërëm a ngi si wallahi alazim man bokkoon naa si ñu d'accordul woon ñu jël ndimbal yóbbu ko si ministère de la santé da bokkoon naa